asalaamaaleykum yéen waa Sénégal maa ngi di siyaare nag ku ne xam na li fi xew ku def dara nag dégg dara li ma def nag jublu moo si dara dama ko def rek ngir wan nit yi ne leen fii lu waay di def rek nay rafet ndax yàlla xaaratul fële de fële dafa sori fii la lay fayee sa borom man mii peut-être sama bis dina ñëw maa ngi koy xaar ndax man jiiñu ma sax nit lu bon man lu baax laa jiiñ ñëpp ku ma bëgg bëgg naa la ko ma bañ bëgg naa la man xam ne moo ñi ma bëgg ak ñi ma bañ mooy ku xam Europe na xam ne Europe dafa sedd instant dafa sedd bay taw glace mais lu mu sedd sedd taal naa sama oto ñëw si ndox mi ndox maa ngi nii gis ngeen ko géej gi ni mu sangu naa ba doyal ndax wax ji ndox mi man maa projet protéger tuuti sax aw ñoo dem kër ga sangu après ma toog añ mooy loolu aros te aros lay añee aros lenn moom xamal naa leen ko quoi sama compte TikTok léegi si diggante dund ak dee nekk naa féqe yi Sénégal yi lii tax ñuy defal teraanga dañoo soxor waaw defal naa leen tiraang ngeen bëgg maa xañ sama compte TikTok man bu ngeen ma xañee bii ma tijji beneen de man fu ma woote ñëpp ñëw